asalaamaaleykum ñu mu leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak euh, Sénégal 7 ñu am mbégte euh, am waxtaan ci wàllu politique kiñ ci dalal nag ñu am honneur daal di koy dalal amal ak moom waxtaan bi nekk kenn ci leader yi nga xam ne ñoo nekk ci coalition bu yees bi di aar Sénégal dañuy tàmbalee waxtaan bi ak euh, moom di docteur Abdourahmane Diouf docteur ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum Abdou Khadir. maaleykum salaam maa ngi lay nuyu. Euh, di kontaan trop. di def émission ak yow. Mhm. di def émission aussi ak Aar Séné euh, ak euh, gis nga maa ngi wax Aar Sénégal. <laughs> mais di def émission ak Sénégal 7. parce que lu ñu yàgg waaj la. Mhm. ma gis liggéey bu set bu rafet bi ngeen di def. c'est la première fois. Mhm. et xam naa dina bari yeneen yu bëri yoo xam ne dinañ ko defandoo ensemble. effectivement nous l'espérons beaucoup. Mm-hmm. alors docteur te yow yaay nekk euh, président bu parti ànd wattu askan wi liggéeyal ëllëg muy mm-hmm. awale. nekk itam coordonnateur bu coalition Aar Sénégal. dinañu ñëw ci coalition bi waaye itam ñëw ci ni nga xam ne mooy législative yi waaye itam du ñu terminer sans wax ci awale euh, gis nañu projet bi bu am solo la. faw ñu waxtaan ci tuuti ak askan wi waaye balaa ñuy soree ba egg foofu dañuy ñëw ci Aar Sénégal ak dernière décision yi nga xam ne conseil constitutionnel daal dina koy rendre am na ay objection yoo xam ne coalition bi def na ko ci est-ce que mën nga ci revenir balaa ñuy dugg ci yenn détails yi. Euh, waaw kay jërëjëf euh, Abdou Khadre Aar Sénégal moom bi mu juddoo ak léegi boo xoolee ci un mois la yem. Mhm. Euh, mais nekk na fi coalition boo xam ne ñu ngi koy tudd. Euh, liñ koy tuddee nag du ci problème mu caution du ci problème mu parrainage du ci problème mu liste du ci problème mu parité mhm. dañ koy tudd pour le sens de l'organisation bi ñu am ak résultats yi nga xam ne moom lañu def ci processus électoral u Sénégal bu metti bi mhm. donc ma ci encouragé parti yi nga xam ne yëpp ñoo ci nekk ak mouvement yi ak leaders yi mhm. ak militants yi nga xam ne ñoo def liggéey bu rafet boobu euh, par rapport ak conseil constitutionnel bi li xew du conseil constitutionnel rek damay wax ne trois niveaux la dafa am niveau direction générale des élections am niveau ministère de l'intérieur nga xam ne ñoom ñooy euh, chefu direction générale de l'élection am niveau conseil constitutionnel xam nga particularité élection législative yi mooy conseil constitutionnel daf ci am wàll ministère de l'intérieur am ci wàll ñoom ñaar ñu ànd di liggéey waaw ah, bi ñu commencé ba léegi nag bari na ay jafe-jafe te jafe-jafe yooyu li ko indi mooy volonté président Macky Sall fexe élection bu ñëw au lieu mu organiser ko pour ñëpp bokk ni ñu war a bokkee mais dafay fexe toujours di wàññi ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy bokk. xeetu sélection. xeetu sélection ci la dëkk moo sax dañ koy tooñ di ko wax naan sélection législative lay def. Mm-hmm. comme ni mu defee woon sélection présidentielle. donc dafa bari ay pièges yu ci nekk nga xam ne balaa ngay yëgsi ci joŋante yi dafa am étape yu bari yoo xam ne ci ngay jaar. Mm-hmm. ma joxe ci rek benn exemple pêcheurs yi mooy suñu mbokku mool yi. Euh, dañu bëggoon dem élection législative élection législative balaa nga ci daan dem avant dañ lay wax ne la caution bi ngay déposé mooy quinze millions yi mën nga ko indi cash xaalis xobbet xobbet nga joxe xaalis la wala nga indi ko chèque simple ordinaire normal nga déposé mais ren dañu ne il faut nga déposer chèque de banque chèque de banque boo nekkul ci milieu bi wala nga miin affaire yi doo xam moom mooy lan donc suñu mbokk mool yi nga xam ne du ay politiciens dem nañ déposer seen chèque ordinaire quinze ñu rejeté ko dama ko teg doole seen kaw ne leen loi dafa wax ne chèque de banque ngeen di déposé donc yooyu yëpp nekk ci ay galgal yoo xam ne état du Sénégal moo koy def ak parrainage bi ak yeneen. Mhm. avant avant mhm. continuer s'il vous plaît. oui euh, certainement pêcheurs yi lay déglu dinañ bëgg a xam. Mhm. lan mooy différence entre chèque simple ak chèque de banque. waaw xam nga chèque ordinaire rek mooy comme yow tey am nga sa compte. am na 15 millions yoo xam ne moo ci nekk dangay dem bind chèque bi dem déposer ko boo ko déposé ki ko jox. caisse de dépôt et de consignation en l'occurrence dem retiré ko hmm. chèque de banque bi nag si j'ai bien compris da nga jox banque bi hmm. banque bi ci boppam moom mooy dem ci compte bi génne xaalis bi transféré ko maanaam balaa muy joxee balaa ñu lay jox chèque bi fekk wóor la leen déjà ne génne nañ xaalis bi genre virement quoi mais xam nga yooyu yëpp ay galgal la rek hmm. parce que ki am quinze millions am na quinze millions dama doon joxe exemple boobu pour wane ne élection bu ñu ñëw rek ñu indiwaat ci ay ndëgg sërëx yoo xam ne mhm. dafay tax citoyen sénégalais yi bëgg a bokk duñu mën a bokk pëccëxoo boobu nag moo indi li xew conseil constitutionnel mhm. loolu laa doon expliquer sànq ma ni li tax tey ñuy wax conseil constitutionnel c'est parce que dafa am ay recours li tax mu am ay recours c'est parce que dafa am ay erreur ci liste yi mhm. ñu commencé Yewwi Askan bi ñoom la ñu jëkk a gis ne seen liste Dakar bi dafa am problème euh, bi mu amee problème direction générale des élections donc à travers le ministère de l'intérieur dañu leen ko notifier ne leen seen liste bi baaxul donc mënul dem élection décision boobu leen ministère de l'intérieur jox moom la waa yi jël dem conseil constitutionnel mu am recours il faut sénégalais yi xamee ko noonu ñun fi ñu jàppalee ne fa la combine bëre bi joge encore une fois je le précise à l'intention de ñu ñuy déglu ñun mësuñu wax ne waa yi ak waa Benno dañu toog di complot te dañu expliquer ne combine bëre bi ci am état du Sénégal moom moo koy organiser. Mhm. pour list bennoo bi ñu sauver ko. Mhm. nan lañ koy sauver dinaa ci ñëwaat bu ci kanamee. mais Yewwi dafa am problème ak liste Dakar ñu notifier leen ko ñu dem recours ñu dem ba ci biir ñu gis ne list benno bokk yaakaar dafa am problème. mais bi mu amee problème au lieu que ministère de l' intérieur bind leen laaj ne leen seen liste baaxul loolu ba léegi defu ko mm-hmm. alors ko ci ñaari fan yi la ko waroon def ñun boobu la suñu xel ñaaw ñu ne fii am nañ fu ñu jëm puisque ñoom état ak ministère bi xam nañ ne liste Benno Bokk Yaakaar baaxul ñu ngi nekk di may waa yi ci conseil constitutionnel loo xam ne peut-être waa yi sax laajuñu ko ñaanu ko ñaanuñu ko toppatoo ñu ko mm-hmm. pour ëllëg bu ñu defee beneen décision njombe pour jàllale liste Benno Bokk Yaakaar ñu ne ah conseil constitutionnel bi kat moom njaaxaanaay lay tëddee parce que semaine bi passé joxoon na raison waa Yewwi bi pas jox na raison waa Benno foofu la complot bi jógee donc deuxième problème bi mooy waa Yewwi am nañ aussi problème ci seen liste national loolu aussi direction général des élections ak ministère bi notifié wu ñu leen ko donc ñoom daal arrêté nañ xool li baaxul ci list yi ba ñu gisee ne Benno Bokk Yaakaar dafa nar am problème ce qui fait baal nañ waa yi ci seen liste nationale loo xam ne waruñu leen koon woon baal euh, baal nañ Benno Bokk Yaakaar ci seen liste loo xam ne waruñu leen koon woon baal ñooñu ñëpp ànd dem conseil constitutionnel léegi li ci ñëw mooy beneen état complot bi nga xam ne moom moo ci nara toppaat ñun dañu jàpp ne ala kulli alin conseil constitutionnel dina fexe liste Benno Bokk Yaakaar jàll. te faw mu bàyyi yeew jàll. voilà te ko jàllee. Mhm. bu ko bàyyee mu jàll te benn bàyyiwul ñeneen ñi jàll day nekk scandale. Mm-hmm. dafay fës trop. donc gymnastique bi ngay gis ci affaire bi yëpp benn objectif kese la. Mm-hmm. mooy nan lañuy fexee list Benno Bokk Yaakaar jàll. bu doon par exemple Yewwi Askan bi amul benn problème ci liste nationale am ak liste Dakar mën nga bind ne. Mm-hmm. Euh, non astafurlah dama ne bu doon Benno Bokk Yaakaar amul benn problème. ci liste nationale am. ba nga xam ne dañ naan dina dem wala du dem ne la wóor ne liste yeew yi dañ leen di téye mais tey genre ping pong la pour wane ne conseil constitutionnel mu ngi def liggéeyam fi may terminer ci question boobu mooy waa yeew yi nañu def attention parce que affaire yi jeexagul liste yi mardi au plus tard le mardi 31 mais au plus tard lañ ko war a euh, publier mm-hmm. maa ngi soupçonné aussi waa Benno Bokk Yaakaar. conseil constitutionnel na leen seen liste suppléant bi baaxul mm-hmm. parce que ñoom seen problème nekkul ci titulaire yi ci suppléant yi la nekk ñu ne leen seen liste suppléant yi baaxul donc dañuy rejeter seen liste suppléant bu ñu defee loolu day mel ni ñoom ñu ngi appliquer loi mm-hmm. loolu bu ko defee c'est peut-être pour mieux rejeter mm-hmm. la liste de Yewwi bu boobaa dañ naan ah rejeter nañ ñaari liste yëpp mais puisque ñoom waa Benno seen liste suppléant moo baaxul rejeté nañ seen liste suppléant en sachant que c'est pas les mêmes conséquences. Mm-hmm. parce que bu dee da nga rejeté liste suppléant wu Benno bàyyi leen ak seen liste titulaire dañu bokk élection. Mm-hmm. alors que waaye Yewwi boo rejeté seen liste titulaire ñoom duñu bokk élection. Mm-hmm. donc lii yëpp gudd na mais c'est pour expliquer que élection Sénégal depuis président Macky Sall nekk fi jaarul yoon. moom li mu bëgg toujours mooy nan lay fexe ba gañe combat bi. te du am mbër bu tolloog moom bu nekk en compétition. d'accord kon da nga jàpp ne en somme euh, décision conseil constitutionnel constitutionnel amul fenn fu mu ko weer fu dëgër foo xam ne euh, wax na ko pour euh, bàyyi ñaari liste yi. ñu ñu jàll en attendant. gisuma ko man conseil constitutionnel en tant que institution. Mhm. damay am respect ci moom. parce que man juriste laa quand xam naa juriste yi lu ñuy daj ba yegg niveau boobu. Mhm. waaye nag wax loolu terewul wax ne. conseil constitutionnel saa yu ñu duggee ci mbirum politique dañuy fàtte droit ba ñu jàngoon nekk di farfarloo loolu lañ ñu tàmmal fi mu nekk nii accepté nañ liste Dakaru Yewwi mais bu dee juriste da ngay xool décision bi pour man teguñu ko fenn parce que fi ñu ko teg ñoom mooy ne code électoral bi terewul waa Yewwi askan bi ñuy ñëw def seen ay remplacement alors que ci code électoral bi wax nañ condition yi nga xam ne ci la ñu war a remplacer nit ci liste donc c'est pas parce que dindi nañ article bu jëkk ba yi nga xam ne moo ko doon tere que amatul conditions yu ñu teg pour wax na lañ koy remplacer. te conditions yooyu bu ko waxee par exemple ñu ne nit ku faatu ku àdduna dañ lay remplacer conditions yooyu elles sont limitatives ni ko code électoral bi waxee foofu foofu la yem donc vide juridique bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel di wax ne moom moo ci am mm. en réalité amu ci. mais dañu dem wuti créer seen benn argument juridique pour mën a jàllaloo liste Yewwi pour apaiser la tension et la situation politique loolu yëpp encore une fois c'est pour mieux faire passer la pilule que liste euh, Benno dina jàll. d'accord alors demain. Euh, mm-hmm. la ñu war a euh, publier les les les listes. Mm -hmm. euh, chez si conseil constitutionnel. Euh, au cas où contestation yi ngeen di def. ci liste yeewu askan wi ak Benno Bokk Yaakaar jàll na lan mooy doon seen taxawaay Aar Sénégal. alors ñu préciser d' abord mooy li ma doon wax sànq mu bëggoon sénégalais yi bàyyi ci xel bu baax a baax bi ñu gisee ne liste yeew yi dafa am problème ministre bi deux jours la amoon pour bind leen wax leen ne am na problème parce que lettre boobu mooy wane ne seen liste baaxul ñoom bu ñuy def recours ñu door a def recours mm-hmm. bi ñu gisee ni liste bennoo dafa am problème. ministre bi daf leen waroon bind ni seen liste dafa am problème bu ñu def recours ci conseil constitutionnel ñu koy door a def mais le fait que binduñu Yewwi binduñu Benno foofu la labaj carte bi commencé loolu c'est très important ñu xam ko donc ñun ñu ngi doon xaar ministre de l'intérieur génn lettre yi nga xam ne ci lay constater irrégularité yi loolu mooy benn deuxièmement bi ñu demee constater irrégularité yooyu am na ay procès verbaux mais jurisprudence conseil constitutionnel dafa lay wax toujours ne la mënoo ñëw ci ñun à travers des procès-verbaux. donc ñun am nañ benn inquiétude. mooy list bi nga xam ne moom la euh, ministre bi di publier suba mooy liste officielle yi est-ce que day lekk nekk liste Benno ak liste Yewwi ak erreur yi ci nekk est-ce que noonu lañ koy tafe wala est-ce que dañ koy corriger ba pare door ko taf loolu mooy l'enjeu de la publication des listes officielles suba bu dee dañ ko corriger ba pare door ko taf xamal ni état du Sénégal mu ngi labaj carte yi te labaj carte gi yooyu yëpp pour que liste benn bi mën a jàll la te loolu bu ñu ko defee ce serait un gros scandale parce que amuñu droit ñoom laal liste yi loolu muy benn en revanche bu ñu ñëwee ne bon ministre bi deful notification mais bàyyi na liste yi ak na mu meloon c'est-à-dire nga gis clairement que ne liste euh, dafa am problème mu doublon bi maanaam benn nit bi nga xam ne moom la ñu remplacé dafa nekk ci titulaire nekk ci suppléant nga ñëw gis liste suppléant bennoo que ni respecté wuñu parité bi au niveau de suppléant bu dee noonu lañ ko tafee te ñun ñu ngi espérer ñu publier ko noonu ça veut que beneen période contentieuse day am bu boobaa coalition bu ci nekk am nga 24 heures juste 24 heures pour déposer ce recours boo déposer ce recours conseil constitutionnel am na trois jours pour joxe une décision ñun nag ñu ngi waxtaan suñu biir nous n'excluons pas bu boobaa ñu déposer ay recours parce que dañu gëm ne ñun dañu respecter règles yi nga xam ne charte yi nga xam ne moom lañ ñu teg mu metti lool ba suñu ay liste baax ma fàttali ne ñoom ñëpp dem nañ xool ay liste Aar Sénégal te liste Aar Sénégal yi ñu gis ñun defuñu erreur yooyu nga xam ne ñoom moom lañ def donc warul am benn combine bëre c'est pas parce que dañ naan diw coalition bu mag la coalition bu am doole la que bu respecté wul loi bi dañ ko war a bàyyi mu bëre donc ñu ngi ci waxtaan mais écarté wuñu possibilité bu ñu publier list yi ñu gis ne problème yooyu mu ngi ci ñu def recours devant le conseil constitutionnel. d'accord parce que liste bu baaxul baaxul te boo baaxul waroo bokk ci élection yi. d'accord alors dañuy xaar donc les décisions yi nga xam ne moom le conseil constitutionnel. waaw liste bi daal moom la ñëpp di xaar d'accord moom la ñëpp di xaar. Euh, vous êtes en alerte alors. Mm-hmm. Euh, léegi dañuy dañuy ñëw tuuti ci. Euh,